daarakat ñun ñëpp moo ñu mel meññ daara alxuraan karim ñun ñëpp moo ñu meññ moo meññ faw yi moo leen defar moo defar imaam yi moo defar ustaas yi ñii fi toog tey bañ mën leen a xool wala ku jaaxle ci réew mi bëgg delluwaat ci diine daara moo la defar ñu gis ne daara jooju nga xam moo ñu produire ñun ñëpp nekk na ci ay jafe yoo xam ne faw war nañu jug ñun ñëpp nag pour tinu daara yëkkatiwaat ko waaye réorganiser waat ko tegaat ko fa mu war a tegu loolu yaakaar naa ay soo xam ne bala ma ko def faw dana def tournée nationale tournée boo xam ne dana wër wàcc ci terrain bi xam dëgg-dëgg lan moo nekk ca ban ba ndax du ne rek da ngay def forum daal di toog dakaar di wër télévision yi war rajo yi di wax te wàccoo ci biir terrain bi ngir bañ kenn ku jam wala boog ngir ba xam dëgg-dëgg mbir yi naka la problème yi dundee moo tax ñu wàcc dem fépp macha allah yaakaar naa tournée boobu gis ngeen ko mu nekkoon le 9 janvier ba le 16 janvier ñu ànd ñu wër Sénégal gépp dem nañ ci ndax dañoo cibloon ñett premièrement mooy autour autour maanaam maanaam suñu xalif généraux yi ñaareel bi mooy sunu Euh, ma maanaam sëriñ daara yi ñetteel bi mooy euh, euh, maanaam autorité étatique yi loolu bi ñu ne bërët bi ñu déparé Thiès lañ njëkkee gouverneur yi dalal ñu maire yi dalal ñu ñu jóge fa dem xool yi chef religieux yi ba ñu fa jógee xool daara ya fa nekk noonu lañu ko gën ne wër Sénégal gépp dem sëñ Bay Si Mansour mu dalal ñu dem sëñ Muntaxa mu dalal ñu ñëpp dégg ngeen kàddu yu rafet yi mu yëkkati ñoom xalif généraux yëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla leen yàlla guddal seen fan yàgg suñu kanam dem ci sëriñ daara yi dem nañ daara cosaan yëpp dem nañ fa dem nañ fas Touré dem nañ Kokki dem nañ njañ dem nañ Aynumaat dem nañ Njarne dem nañ jaamal daara ciosan yu nga xamne ne ñoom la fi sun mami yi won ak pir fo fep wër nañ ko dem nañ fa ba xam deug deug lan la wa daara jankontel ba ci daara moderne yi sax yu bees yi dem nañ ci ñoom ñen ño xam set nañ am na ñoo ño xam ne jot nañ ñu wax ak ñoom ñu wax ñu deug deug lan mo seeni problème donc autorité étatique dem dal nañ gouverneur dal nañ ñu ñëpp dal nañu donc ñu xam deug deug dal les éléments de réponse yi ñu soxlon deug ngir xam fan lañu war a mën teg tànk ak xam lan mooy jafe-jafe yi loolu alhamdulilah rabbil alamin yàlla may nañu ko ñu def ko na mat sëkk ñu def ko ba si nag bi ñu delsee nag moo tax ñu ne kon balaa la ñu àgg le 22 février ca Radisson ñu war ko faa def nañ woowaat askan wi woo journaliste yi presse bi ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ndax yéenay jàllale lépp loo xam ne moom lañ bëgg jàll ci askan wi nañ leen woo jàkkaarloo génn waaye invité waale ñi nga xam ne ñoom lañ ko ñëpp ñu tudd leen nii ñu toog ci taabal ji kuréel yëpp tey Jamra ñëpp ngi toog macha allah kuréel yu mag yi gën a nekk Sénégal ñëpp a ngi toog day tey ci taabal ji ñu ne kon bu ñëwee nag ñu wax leen ne leen liñ bëggoon ci tukki boobu mooy xam dëgg dëgg mbir yi naka la demee xam nañ ko am na loo xam ne manees na ko wax be am na loo xam ne xajut fii ci jataay bi am na loo xam te bind nañ ko insha allahu rabbi loolu nag bu amee euh, damaa jàpp ne ñi ci war a njëkk jiitu ñu war ndax wax naa ko nee naa lan daara mënee su ko organiser mukk teg ko ci yoon fa war a jaar yoon te état du Sénégal àndu ci waaye état itam mënta wax ne projet bu mën a ab mu yor ci modernisation ak nu mu ko mën a tuddee ak nu mu ko mën a defaree bu fekkee ne waxtaanu ñoo ñuy daara waxtaanu ak ñoom ñoo ñuy daara dëgg dëgg dëgg boobaa la mu bëgg tamit du mën a sotti ko wax naa ko léegi ci interview ñu doon def TFM ci journal 13h leen ndab la loo xam ne ñaar ko seq muy état ak ak ak ak waa daara faaw kon ñu ñu rafetal lekk wi rafetal bool bi ni ñu koy téye mooy tax mbir mi mën a sotti donc kon nag état kenn wër leen a jiitu kon ci ndaje yu mel nii nga xam ne moom la askan wi def kenn wër leen ci jiitu ndax li kat liggéey bu mag la liggéey bu rëy la lu liggéey bu ndaw de te incha allah wax naa ko léegi nee na leen dugg nañ ci terrain bi AIS dugg na ci te lu mës a dugg nag yàlla nga ko ci defal ndam waaye lii muy daara nga xam am nay jafe-jafe dugal nañ si loxo te duñ ko so duñ ko dindati mukk li fekk defarul